combat bay jaxate bunt ñaari xale yaa ngi léewtoo congu amagul ku dalagul ndengeeñ amagul ee ñu ngi léewtoo ñaari xale yi bébé garga moo ñu kanam moo takk moo sabu bi waaye bébé ama mu ngi ngemboo ngemb lu lu moof la moo wekkoo buum bi xaw ma fas la xaw ma lum doon eh, mbay yaay ndigu cun ngeen di dégg noonu ak Papa Ndiaye Aïda Mboup arbitre àtte na combat bi mu ngi wax ak ñoom bëre leen arbitre sifflé waat na diggante bébé Ama ak bébé Garga ñu ngi lewtoo eh bébé Ama daw na jël tànk ba mu bañ bébé garga moo ñu woon jàkkaarloo mooy njool mu xees bi bébé ama moo ñu woon ginnaaw ba léegi ñu ngi léewatoo daw na jël tànk ba mu bañ ñu delloowaat ko na woon fa woon damante baanaam bébé ama bébé garga ñu xool combat bi ku ciy màgg ñoom ku ciy ee daw na jël tànk ba mu bañ mu dóor ko mu xaw a rëbb gëddaat na ko moom bébé ama daw na gëdd ko mu reculé ñaar nañ tekk di dégloo ñoom ñaar ñu ngi léewatoo ñaar xale yaa ngi léewatoo bee bébé garga bébé ama song bi baaxul ndax moom da heure bu koy song rek heure bu dal di jóge tànk ba rek da koy téléphoné waaye bébé garga nga koy dóor Bul mu sigi bébé Ama am na loxo ci ngemb bébé Garga tamit jàpp na waaye mu ngi sol xel bébé Ama bébé Ama bébé Garga ay lu ci cuub ak jasneer ay may ay jigéenu Sénégal mën a sañse waaye ambulance ngi yëngal supporter yi waaye ba tey bébé Garga mu ngi sol ay kuy sew bébé garga mu ngi sooxal pour bébé ama sigi waaye bébé ama boo xoolee fu mu loxo ba da sëq ca ca ba moom bébé ama waaye bébé garga ngi dóor bébé garga ngi ama li mu bëgg eh! ama daanu nga bébé garga daan na bébé ama bébé ama daan na bébé bébé garga daan na bébé